sëriñ bi ak mboolem kilifa yi fi teew bu ma fàtte soxna yi di yëkkati kàddu man Moustapha Diop directeur général du institut d'études islamiques Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma di yëkkati kàddu gi ci turu mbooloo mu ñu woon fii di leen liggéey doo leen liggéey liggéey bi muy kàdduy cant yu rëy yu nu ameel sëriñ bi ci liggéey bu liggéey bi bu rafet bu rëy bii mu liggéey ak ci ñii mu ko santoon ju doon ko liggéeyal te doon na ko liggéeyal kon kàddu cant la yu rëy yoo xam ne nii lott nan ci joxe ko nam ware xanaa ni ni jéeme rek mooy dugal ko ca biir cantuk sëriñ Touba cantuk sëriñ Touba ca ba muy sañc dëkk bii ني الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسر مطلب الفوز متملك الحمد لله كن من ني الحمد لله تي الحمد لله بي سيرن بي في نيك لولو غيناو بوكو اي wayjuram ak ñi ko jitu ñepp tambalé bam aksi mu won nu ko mu andil nu ko kon boog nun ñëpp dégg nañ xam nan xasida ak Matlabul Fawzayni mooy la sëñ bi bëggoon waaye nan jàpp ne jataayub tey bii mooy amal li sëriñ bi bëggoon loolu nag ku ci bokk ku ne war ngaa sant yàlla sant ñàlla ca boole sëriñ bi noo ngi dellu di sant ci liggéey bu rëy bii nga xam ne nun ñii fi daje nun ñëpp kenn ku nekk dafa nekkoon ji nab nabi di góorgóorlu ci bëggu sëriñ bi waaye xam nañ ne day alhamdulilah ko ne ci noonu day yàgg naa am ay résultat leer na nañ waaye xam nañ ne résultat yu ñu amoon day ginnaaw kenn ko ne ci noonu sa pexey bopp nga ca ak sa man-mani bopp nga nga ca doon doxee bi ñu boolee xalaat yëpp kenn ko ne la nga xam ak la nga man ñu boole ko ci nga xam ne tënk na mbooleem xalaat ya yaakaar naa ne ku ne ci noonu rek xam nga ne école ba nga yoroon la muy baax baax lii dolli ko na ca rawatina bu ci ndigal dolli ko muy ndigalu sëriñ bi loolu kon barke la cee dolli noo ngi ñaan sëriñ bi yàgg fi ci sunu kanam lii mu ci bëgg mu am ko te amee ko ci noonu dellu di sant bu baax a baax kilifa yii nga xam ne ñoo doon liggéey liggéey bii waaye bokk na ci sax li ñuy sant moo di lii nga xam ne moom la sëriñ bii du liggéey nga xam ne nii mu ko doxalee nga xam ne kenn ko ne ci noonu sa xalaat nga ca nga ca tàbbal ñu boole ko sañoon na sañoon na boole mbooloo mi liggéeyloo leen ko dikk doxloo na ko du ma jël baatu bu imposé waaye maanaam wéyal ko nee nan doxal lii te koy it bu baax yi day baax waaye nag ba nu ca boolee noonu ñëpp nga xam ne noonu ñëpp suñuy xalaat daje na ci lii léegi daal dara desul ci lu dul góor góor lu noonu ñëpp kenn ko jonoon defe naa ne kon man dama jéem jël engagement defe naa mën naa koo jël ci turu mbooloo mépp ci sëriñ bi ci turu mbooloo mii nga xam ne ñoom nga liggéeyal lii école yi fas na ni yéene fas na ni yéene tënku ci fas na yéene tënku ci programme bi incha allah doon yam ci fas yéene tënku ci waaye fas nañ yéene itam sunuy xalaat kem kàttan lépp loo xam ne ne xalaat nañ ko te lu ci mat yokk la wala lu ci mat a dolli wala lu ci mat a jooyante danañ ko def na ko état di ak ñëpp ku bëgg a def lu baax nga di ko defe moo di saa soo ko déroulé lu mat am at wala ab diir nga xool te loolu maa ngi koy sàkku ci mbooloo mi ñii dañu doon liggéeyal nu wuutu nu fa waaye bu demee itam kenn ku ne ci noonu nay xalaat loolu loolu lu rek mooy mooy tax yi fi amélioré ndax non la ko sëriñ touba bëggee dafa wax ne waxtar li liyal ahsana fi kulli layat lu ne rek la ci gën sëriñ bi beug kon pro lii mooy programme programme sëriñ bi nan fexe ba non sou sas non ña moy kenn ko nek fexe ba li rek nim mu gën ci théoriquement ci li nga xam ne lañ ko bindee yaram incha allah ndax lépp ñangalem sëriñ bi no fexe ba mu feñ ca gone ya feñ ca ñinga nga xam ne ñom la ñoom lañ ko doon liggéeyal yàlla na di suñu borom defal tawfiq waye sëriñ bi dal engagement bi no nga koy xam ne noo ngi koy jël ci turu mboolem école yi nga xam ne ñoo nekk fii fii Touba ndax daf noo burul woon dara itam war nanu te xam itam lu baax ji noonu rek lay doon te lu lu nuy dimbali rek lay doon yàlla ci suñu borom defal tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.